sëñ bi Babacar Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi yow yaay njiital euh, club de football bi di Tëngéej mm. FC. ngeen am euh, ci ay bis yi ñu génn qualification bi nga xamante ne daanaka ñu bëri mbetteel lañ ko jàppee ngeen dugg ci phase de poule Ligue des champions lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar Sénégal moo ngi ko doon wër amoo ko yow en tant que njiital club bi ban yëg-yëg nga ci am. waa di wax alhamdulilah rabil aalamiin ndaxte mënoon nañ ci dugg. Euh, ni ñu tàmbalee woon toog nañu juróom-ñeenti weer yoo xam ne bal amul woon Sénégal ndax mbas mi fi amoon donc di dajeeg équipe yoo xam ne tamit ay kàngam lañ ci footballu Afrique donc bu ñu demee ba foofu euh, xale yi góorgóorlu ci conditions yi métti yooyu ñoom ñu qualifié dañuy mën rek euh, di leen sant di leen gërëm muy coach yi staff technique bi Youssou Dabo dirigeant tëngee ci ñi demoon ak ñi demul toute la population rufisquoise mhm. di ko tuddee ndam li Pape Bouba Diop nga xam ne tey la quarantième jour am Hmm. donc di sant yàlla rek. waaw ndam loolu kon léegi euh, mu tax ba Teungueth FC bokk ci cour des grands nañ ko mën a duppee ndax léegi ci phase de poule la nekk phase de poule yooyu ñu def tirage au sort bi ci ajuma ji ngeen nekk ci poule bi nga xamante ne bokk na ci ñu ñu ràññee lool ci Afrique ST bu Tunisie ak euh, Zamalek bu Caire si Alger bu Algérie tamit lan nga jàppee ni poule boobu euh, mën nga ko qualifier ndax yomb na wala lu métti la. pour moom pour moom buñ ci duggee ak indi wu Sénégal bu moom Sénégal gëj na am équipe bu dugg Ligue des champions. Hmm. am na yenn dëkk yu am ñaari dëkk. Sénégal comme boo yi dugg nag da ngay fexe da ngay doon le petit poussé. Hmm. te petit poussé moom buñ ko joxee ñi gën a metti la je crois que Afrique kenn ku xamul Zamalek dégg nga ko. Hmm. ku xamul Al Ahli dégg nga ko ku xamul Mouloudia dégg nga ko. donc ñoom ñoo xamul xëy na tënkee waaye daal. waaye boo demee ba dóor Raja noonu la woor na ñoom tam dinañ la xaar donc match moom benn tirage yombul. quatre-vingt-dix minutes la aller-retour lii def différence rek mooy motivation beeg organisation. Euh, tey nag euh, mu nekk ay adversaires yi ne ñetti dëkk yëpp ay kon dëkku naar lañu lan ngeen di waajal ci déplacement bi ak condition de jeu yi ndax xam nañu souvent football ak naar yi dafa métti lool. waaw ah, football ak naar moom yombul ba léegi moom match réserve bi ñu ngi sonn ba léegi da ngay xeex <laughs> booy egg si aéroport ba avant match ba ba ba ngay ñibbi. Uh-huh. mais bon noonu la da ngay xam le lay xaar bul yaakaar dara ci ñoom yaakaar naa boo yaakaarul dara ci ne dara mënula bett muy bis ak hôtel ak lekk ak lépp da ngay jël sa bopp en charge nga def ku mën sa morom jeex waaye boo demee foofu di yaakaar ñu topp la loo ko loo ko may may teranga mhm. bu ñëwee du la du la fay li ko lebal donc boo demee daal da ngay dem ak mentalité xeexkat rek ne Sénégal nga représenté da ngay dem ba jeex. ci hmm. biir phase de poule yi ban objectif ngeen am léegi. ah phase de poule yi mooy représenté dignement le mënuñoo topp euh, équipe boo xam ne neuf ans la am. Mhm. Euh, amagul dix ans disons lay am dix ans nga ñëw ne da ngay dóor al ax leeg zamalek ak u jaar da ngay dóor. Mhm. objectif moom doo koy teg da koy teg ci fànn yu wóor euh, dem match après match objectif premier wu TFC mooy continuer faire bonne figure localement. Mhm. léegi Champions League bi xale yi dinañ ci jàng lu bëri. liñ ciy jàng nag match après match la après on fera le bilan après. ndax ci biir euh, léegi compétition africaine bi rawatina euh, jot ngeen ci ndimbal wala ay digle yu tukkee ci état bi d'abord ak euh, ci kuréel yi nga ko football ci réew mi. non xam nga état moom booy dem Afrique moom billet d'avion yooyu la lay jëndal. Mm-hmm. après amaguñu gisaguñu kenn ci état bi wala yeneen kuréel yi. ñu ngi xaar fédération xam naa du ñàkk mu jàppale bi. Hmm. ndaxte février mars avril lay doon déplacement yu métti le doon ak championnat bu gàtt. Hmm. état bi gisaguñ leen déggaguñ leen. maanaka gis nañ fi équipe yoo xam ne bala ñu doon dem. Hmm. jox nañ leen terrain jox leen bus jox lépp. ñun dem nañ dem te ñoom ñëpp bi ñu demee dañu toog. donc ñun bi ñuy dem jotuñu dara. bi ñu ñëwee tamit qualifié nañ déggaguñu dara jotaguñu dara mais duñu xaar dara. boo nekkee ci yoon di liggéey bul xaar kenn boo nekkee ci yoonu dëgg bul ragal na continuer di liggéey rek dina baax incha allah. gis nañu parcours bi Teungueth FC def ci championnat bi daaw ren mu confirmer ko ci li nga xamante ne moom mooy Ligue des champions bi est-ce que loolu dafay dëggal li waroon ngeen jël dogal daaw nekkoon du ngeen dem Coupe CAF ngir waajal seen bopp. daaw moom te dafa jampoon. lu nekk dégg nañ ko amuñu xaalis pare wu ñu dañu ragal wala dañuy saboter mais booy somb booy song Afrique. da nga koy song ci anam yu leer waaye Sénégal xam nga ne bu championnat jeexee jour yëpp ay tukki. Hmm. koo ci nekk ay dem Liban wala Ouzbékistan sax pour deux cent mille franc daf la fay bàyyi dafa bëgg a tukki. Hmm. donc boo demee ba sa équipe tas sa entraîneur nekk ak équipe nationale Caire. Hmm. équipe boo xam ne amagul entraîneur lépp. donc foog na booy dem loolu xaru la. donc nga fay sa amende deux millions toog xaar déwén defaruwaat ba boo defaroo nag nga mën a nekk dans la constance di liggéey parce que Afrique. Euh, li ëpp solo du ñëw gañe ko mooy nga régulier hmm. boo régulier nag yàlla may la nga régulier muy CAF wala Champions League wala feneen dina la may ay chance ngay màgg du ñëw am prétention ne dañ koy jël du yomb si si ñun waaye du yomb tamit si ñoom. léegi ci mm. championnat local bi nga xamante ne toog nañu daanaka fukki weer euh, jongantewuñu ko gannaaw mbas bi nga xamante ne moo ko waral euh, ñu daal di koy door weekend bi wees euh, weekend bi ñu dëgmal ñu war a sóobu ci ñaareelu bëccëg bi dëggale naam seen première journée Tëngéej joué gu leen ko waaye ban jàngat nga ci am rawatina ci format huis clos bi nga xamante ne moom la ñu imposé. waaw format bi moom xam nga ak mbas mi moom lépp lu ñu mën def rek moytu la ndaxte kenn ñaanul benn kaa am fenn. Mhm. donc am na foo xam ne fu ñu ci tolloo dañuy teg say say bëgg-bëgg personnel sóoraale ñëpp ndaxte équipe bu am kaa moom ñu bëri ngay exposé. Mhm. donc ñu ngi sant yàlla pour le moment ñun depuis juin ñu ngi def test yi bi ñu demee Maroc 34 membres délégation yi ñëpp ñu def test ñëpp revenir négatif donc dañuy continuer rek di di ñaanal Sénégal feebar bi dañ fi ñëpp wér képp ku tëdd yàlla na la yàlla yëkkati nga dem fekkiwaat sa njaboot loolu moo ëpp solo ndaxte. football du wees waaye santé moom amul prix. santé amul prix waaye gis nañ ni test yooyu ñu reprendre football yëpp ci dëkk yu mag yi rawatina dañu koy imposer waaye Ligue Pro ak sax fédération nee ñu mënuñu ko imposer club yi ndax loolu jàppoo ni risque la pour football local bi. waaw xam nga bu ñuy comparer tam yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi seen nguur daf ciy def dara tey xam nga nguur gi bu la joxee ñaar dërëm da nga war a justifier tamit yow fu ñu ko def jox ko xale yi waaye boo taxee tamit joxoo nit ki dara muy liggéey dem da nga Hmm. waaye doo ñëw di di wañ loxo bi xale yi li ñuy def tey bu ñëpp arrêté football bi di nga am lu ëpp ñaari junni wu nit yoo xam ne dañuy toog seen kër football ñu hmm. te fayeeku wu ñu tamit. léegi lu jëm nag ci euh, dogal yu yees yi nga xamante ne jël nañ ko euh, ci wàllu mesure restriction yi ak euh, couvre-feu bi nga xamante ne vingt une heures lay door ndax loolu du am jeexintal ci football local bi ci club yi ak sax ci seen wàllu préparation. club yi daal moom dañuy adapté rek. club yi moom je crois dañuy rendre hommage président de club yëpp ak dirigeant yi yeeg ñëpp. ñëpp ñuy dund ci football ndaxte dañuy adapté wu rek. Mhm. bu couvre-feu amee dinañ wàcc match yi seize heures c'est vraiment ñëpp dañ leen war a simin chapeau ndaxte ñëpp ñu ngi góorgóorlu ñu ngi fexe ba te kenn déggu leen ci lu ñaaw déggoo acteuru football yi ci mbedd bi déggoo leen ñuy manifester di def lépp je crois que depuis dix ans football sénégalais mu ngi muñ te malgré conditions yi ñu ne football Sénégal moo jël pays première place Afrique donc yàgg nañu muñ jot na nag nguur gi xool li muy def mayu leen ko ndaxte li muy def day jàppale. xale yi fi nekk club bu ne am nga cent vingt jeunes minimum boo jëlee quatre cent club yi nekk Sénégal xale boo ci jox même dix mille francs li muy jënd ji am na TVA am na leneen. Mhm. donc bu nit ñi di wax naan nguur gi gis ci boppam mënuñu wax loolu ndaxte ñëpp ñuy def seen xaalis ci football bi nguur gi gis na ci boppam ba pare. Mhm. président de club yëpp ku ciy teg cent francs état bi jënd sa trente pour cent ba pare. Mhm. donc li si des mënuñu ñëw di la tegal double imposition. ñu xoolaat statut yu boo xam ne reconnaître lañ leen dans le code du yooyu yëpp comme ni ñuy wax ndar xëyul sotti waaye nañu continuer liggéey ci bokk ndey bokk waaye Sénégal jëm kanam. jafe-jafe yooyu yëpp ngeen di jànkonte ñu gis ni kon match yi huis lay doon maanaam du am benn recette liy tukkee ci billetterie ba xam club Sénégal yi mën nañu tenir ba saison bi yëpp jeex ci huis clos. ah yàlla rek xam xam nga daaw sax bi public amee teniruñu ba ba mu jeex tey booy organiser match di nga def regroupement di nga fanaan loo xale yi di jël mettre leen dans de bonnes conditions di nga indi médical togg ndekki añ reer loolu yëpp di nga romb cinq cent boo waree tukki génn feneen mu yokk million dem feneen. di nga loué pompier di nga loué gémi di euh, rouge lépp di fay terrain. te loolu yëpp bu jeexee doo am recette doo am dara nga war a fay joueurs yi jox leen passe jox leen prix. Hmm. donc benn match championnat rek dina coûter équipe bu nekk entre cinq cent mille ba deux millions. dépendant de fi ngay dem buñ la yóbboo Casamance nag am 4 millions. Hmm. Euh, métti na léegi euh, objectif u Tëngéej FC ren ndax gis nañu daaw ah, xëy na mbas mi moo yàq yëf yi waaye parcours bi ngeen amoon mucc na ay ayib lool ren ban xar kanam nga yaakaar ni sa équipe dina ko indi. ah ñu ne bu ñëpp dajaloo rek bu xale yëpp wéree ba ñëpp taxawaat rek après dinañ dinañ defaat championnat bu baax incha allah am naa ci yaakaar yàlla nag mooy dogal yaakaar rek la ñu am. Hmm. waaye xam naa ne xale yi ak li ñuy liggéey ak seen coach Youssouf Dabo ak adjoint yeeg Alassane Dia directeur technique dirigeant yeeg supporteru Tëngéej yeeg yëpp yaakaar naa ne dinañ am saison bu baax daal ndam nag yàlla moo koy joxe mais dinañ am saison bu baax incha allah. ban xeetu championnat ngay xaar ren ji ak yan favori yan équipe nga jàpp ni ñoom ñooy favori ren. favori moom xam nga mbiri moom du ci du ci tur favori moom liggéey la rek ku liggéey di nga ko gis donc sur quatorze équipes yëpp mu démarré snaps Jaraaf ñaari Tali Pikine Douane ñëpp macha allah équipe bu ne am nga joueur am nga dirigeant donc compétition la rek. Hmm. ku nekk ni nga a jógee en fonction ndax ngay blessé amoo blessé euh, teel a démarré wala arrivé en en trombe rek. Hmm. mais pour man de bi amul amul favori. Hmm. même équipe bu L1 L2 yi li leen différencier waaw président kon laataan yu koy jeexal xam nga ni da ngeen di dugg ci championnat rawatina ci ligue des champions bi ngeen nekk en général ñi ñi équipe yi fay dem dañuy soxla public waaye ren ji mënuñu compter ci public ban euh, appel looy maanaam looy ñaax askanub Sénégal rawatina ci mbir mi. ah ñu encouragé xale yi rek ku nekk euh, ñu encouragé xale yi tëngëj xale yi jaraaf du tëngëj kese. Hmm. ñu xam ne seeni rakk lañu. Euh, ay doomi réew mi lañ dañuy góor di ci ñaan ci di ci tekki amul benn président yaakaar naa dañuy wax jour jëndagul oto Sénégal waaye moo benn président kër Sénégal tamit bu fi jënd kër wala oto ci football local bi ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk waaye que ça soit président entraîneur ak joueur. Hmm. Hmm. solidarité boobu ndax am gis nga ko ci tuuru Tëngéej FC ci Ligue des champions bi. waaw gis nañ ko gis nañ ko parce que bi ñu demee tamit Maroc sénégalais fa nekk tamit seetaan nañu benn yoon. Hmm. ñoom ñoo gën a dooleel équipe bi sax ñu di leen rendr hommage ñoom ñëpp. franchement gis nañ solidarité même club sénégalais yi nekk fii Ñambour génération foot Jaraaf Sayer Seck euh, Matar Ba ñëpp jàpp nañ ci. Mhm. donc daal équipe bi daal wéetul benn yoon Sénégal yi foog naa fu mu dem di xeex fu mu tourné dina gis moromam. Mhm. malgré rivalité yu mënti am rivalité yooyu sax ay sportif la du dara amul xeex amul bañante. Hmm. sëñ bi Babacar Ndiaye ma fàttali yow yaay njiital Tëngéej football club Rewmi FM mu lay gërëm bu baax. jërëjëf merci beaucoup.